وآله الأكرمين وأصحابه المهتدين ومن تبعهم إلى يوم الدين الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki réew yi maa ngi nuyu ñëpp ci turi sëriñ Muntaqa ayyadahu llahu wa nasarahu wa makkana tey jottali kàddu yi ci ndigalam mi ngi ndokkeel ñëpp ci gan gu ci gan gu màgg gi di weeru ramadan wi tàmbali ci ci guddi gi tey wax ne sant yàlla war nanu ci fekke gi ak tal gi te ñaan ko mu may na ci tawfiq ci dundal ko ni mu ko bëggee ndax lu ko ñor la ba mu wax ne كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به jëpp jëfi doomu aadama moo ko moom ba des woor moom maa moom te maa ci faye waaye nag yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa na ne am na lu a tax woorkat bi bañ a dajeeg payub yàlla googu lim doon xiif ak doon nar lépp dem ci ñaan te loolu ci jullit ñi ñi ci ëpp dëkk ci ci koor ak ñu koor te ñoo waxi caaxaan ak jëf-jëfi caaxaan nee na man lam yadaa qawla zuuri wal amala bi fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa taamahu wa sharaabahu ni julli di woore cëriñ ci des ñoo xam bët la wala tànk wala nopp wala làmmiñ wala leneen lu mën di doon ñu leen wala war a woore amsik an nawari lil xaraami wal mashi wal sami ma al kalaami wa kulli fikratin radiatin kama amsakta an aklin wa shurbin ulima فالصوم أن يصوم كل عضوي عن كل ما يفضي فتن لسهوي bu dog jegee yit bum yàkkamti di dog te leeru ko jant bi sona te bu soo itam mu jëfandiku lu yam ba du mel ne bàyyi na ci ñàkk a jot pay koor terew ko sax ci lekk ak ndax bàyyi na lim baaxoo lekk ka naan ci guddeeg bëccëg du yàgg yàgg ba mu ko def ci genn guddi moom xamut loolu woorkat yu bari nag dañuy jéem loolu te ku baax ki tere woon loolu ba ne wala tukathiru suxuura wal futuur waqta siyaamikum fa tuhramu al ujur fa tuhramu al ujur إذ كل من ملأ بطنه طعام وأكثر الشرب عليه والمنام فإنه مع البهيمة استوى وفاته خير كثير كثير وتوى sëriñ baa ngi gërëm taalibe yi ci li weesu di leen soññit ci li ci kanam ci taral weer wi ci jaamu yàlla ci xiif ak mar ak julli ay rakka waaye ci jaamu yàlla yëpp ci dimbale jaamu ñi néew doole ak ci sàmmanteeg colin yiñ bëgg ku ne di solo noonu ak fu waay ak di jëflante ci suñu biir ni mu gën a rafete te bëgge ko ni mi ñaan yàlla may nu pas-pas bu wér ak wér gu mat ba mën rafetal jëfu lim ci digal te man ko booleeg sori lim ma ci tere te jéem a sax ak jëfe ndigal bàyyi tere gannaaw koor gi loolu sax mooy tegtale ne sunu koor yàlla nangu na ko ci gàttal lii laa andi woon ci turam te naan yàlla guddal fanam te wéral ko ba mu eggale yéeneen ci diine jéeg ci réew mi te mu ànd ko kilifa yoon wi te yàlla na yàlla defal loolu yeneen kilifay diine yëpp te jubal te jubale kilifay aaday réew mi ñëpp lu ci dëng wala mu yées ci nan la waaye moom lu jub lu mat la bëggoon ma wax ko man moom laa yéene woon ngi ci jéggulu bu baax ak ci laneen lu mu man di doon lu ma war a jéggulu lu ma yëg ak lu ma yëgul ak ki jéggalu ku man di doon qaduma al ahdu bil xatai am xadas moo xam njuumte li yàgg na wala yàggul ni ko waxe i'tadir an al xatai taala zamaanu am qasur njuumte moom jéglu rek moo gën a wóor moo xam yàgg na wala yàggul maa ngi jégali ñëpp yàlla na yàlla boole jégal déwénati wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu